jërëjëf mbokk yi ñuy seetaan ci wasaare làmb nuyooti nañ leen am kontaante ak mbégte comme niñ leen koy defalee saa su ne mbokk yi ñu ngi fii ci Mermoz ci restaurant bi nga xamante ni moom la ñuy woowee tapis vert ki fi woo nag suñu nattangoo la muy waa Equivox woo ñu fi ci daje boo xamante ni ñaari champion ñoo fi daje kenn ki di Garga 2 mu ngeen xam menn mi bu jàmbaar Wrestling Academy war a daje ki nga xamante ni mooy Mama Lamine bu Langsar tarkindaa bi nga xamante ni combat boo xamante ni askanu làmb gépp ñu ngi koy séentu moment bi may wax yéen Garga 2 dugg na léegi def bu rafet mais macha allah bu ngeen gisee L200 bii seen ne ci ginnaaw nga xam ne Mama moo ne ci ginnaaw ñoom ñaar ñu nekk daje boo xamante ni bu làmb la waaye bis bisub làmb la boo xamante ni àdduna bépp namm nañ ko di ko xaar mbokk yi kon noonu lay demee dañ leen ko dégtal Père Bour ba ci kanam ñu dugg ci biir dégtal leen gars yi ndaanaane fu ñu yegg si Modou Anta Baye Fall bi siyaar naa la. delloo ziar jiile. mbaa yaa ngi am taw. sant Serigne Saliou comme d'habitude. saa yàlla na sant yàgg. amiin barke borom Tuubaa. maa ngi lay <laughs> bëgg. <laughs> est <laughs>

wa rahmatullah mbokki Sénégal ñu ngi leen di nuyu di leen su ngeen gisee fii ñu toog ak cadre cadre bii ñu toog maanaam sant yàlla la ñuy def julli jëlanti bi rek ñaan yàlla addina bi yàlla def ci jàmm rawatina Sénégal bi di ñaanal tamit li nga xam ne ni defe naa li olof di wax rek lu def waxu lu aay di jàmbat muy coronavirus bi nga xam ne moo lëmbee addina bi jaaxal ñu ngi ñaan yàlla si kattanam yàlla na ko fi jëlee ba kenn bañati koo gis loolu la ñuy dëkk ñaan jataay bi nag li ko waral lenn la Equivox wala mooy label boo xam ne dafa nekk ci bu ñu boo xam ne day yëngatu ci lëm ci jëm ci wàllum lépp loo xam ne daal wàllum événement dañ ci yëngatu tey nag wax rek mbay sa wewu moom la ñu def parce que defe naa bu ñu nee Sénégal suñu sport national suñu cosaan mooy làmb ñoom nag bi ñu ñëwee tàmbalee wuñ ci musique tàmbalee wuñ ci MMA mais ci la ñu commencé ndax ku ne xam ne ne Sénégal moom làmb ay yëfam la jëggaane wu ko bi ñu ci làmb nag am na ay combat yoo xam ne dañ ko taxawal defe naa ne Tyson 2 ku ne xam na ko bu ndaayam ku ne xam na Franc bu parcelle ñaar ñu dañ a boole ñu ne déet na waaye ca la ñu yem ñu dem fa nga xam ne ni ñu des parcelle andi Garga 2 bi ngeen xam ci bëri mën a bëri macha moo xam ne fugg bi mu yore ak na muy bëree defe naa nekk ca Lansar mhm. kenn du ko jaawat ne mhm. yemuñu ca ñu ne déet na waaye nga xam ne moom mooy Noiro ak Moustique ba tey loolu egg box wala box arena moo ko def waaye andi bàyyi ma ñoon si ñoon di rakki bàyyi ma ñoon bokk moom nawet bàyyi ak xale bi nga xam ne combat yi gën a métti daaw bokk na ci ñi ko bëri muy Furiel bu moo Yoff moom bébé Diène ba tey ñoom ñoo ko def alias Birame mi nga xam ne nii bool mbooloo la ñu boole ko beneen xale boo xam ne mu nga nekk ca Yoff ñu koy wax caabu ngeen sonal bool bool yi naa loolu ku ko indi ci ci ab saison defe naa ñëw nga pour jàpp ñëw nga pour yokk parce que nag ku yokkul yaa wàññi kon loolu la box su arena def waaye li ci gën a neex mooy fii ñu toog tey di tapis vert ñu nuyu waa restaurant bi yëpp ñi ko moom rawatina ku mel nii Youssou Dieng parce que li tax mooy moom moo ñu tax ñu li nga moom mooy tapis am la ñuy di la ziar Amadou Diop Amadou Diop fifty Amadou Diop fifty ah. waaw sopp naa ko ndax waali lañ ko waye neex Amadou Diop fifty kon noonu la demee ah ñu ngi tapis vert tey nekk fi nga xam ne moom mooy di Mermoz di restaurant boo xam ne macha allah boo fi ñëwee moom yaakaar na lépp loo la ci xéewal na mu seddeek na mu baaxeek na mu mucc ayib rek incha allahu rabi da nga ko fi am kon bu ko kenn wéreeti fenn ku wéreeti boo ñëwee fi rek wàccal tapis vert lu génn dem sa yoon accueil bi baax na macha allah jataay bi nag lenn am dafa am nit boo xam ne am réew boo ci nekkee yaakaar naa ne ñu bàyyi ba nga génn àddina yàlla na yéex ñu lay delloo njukkal dina baax mais day desee safe waaye boo nee jonn fekke sa njaboot fekke ñëpp wër la ñu delloo njukkal ndax loolu defal sam réew defe naa loolu ku ne moom ngay sàkku ki ñuy delloo njukkal nag kenn la koo xam ne defe naa man ma ci moom lu bëri ndax xale laa dafa fekk ne nag yàgg naa koo déglu ca rajo Sud FM déglu ko ca TFM déglu ko ca 2STV muy àllaaji Papa Diène koo xam ne man international laa koy wooy parce que li tax mooy bu waxee ci làmb nga ne làmb la maîtriser mu wax ci football nga ne football la maîtriser mu wax ci boxe noonu volleyball noonu ak lu mu mën a doon ci réew mi lu mu ci dugal làmmiñam rek su waxee macha allah di nga xam ne kii di wax maîtriser na li muy wax kon defe naa loolu nag barke la moom la nag waa Vox naa ne tey dañ koy delloo njukkal parce que nag ah. ku bindoo ni tama olof a ko wax fa ñu tëggee la ñaari boor moom moo mel noonu ci réew mi lii ñu koy delloo njukkal nag moo wax waral tey nag ñuy def a ngi bëri boo xam ne nit mën na ko na ëpp tur wala nangam waaye pour nga ko xam-xam ko vécu wala nga ko li nga xam ne ni moom mooy cër ci réew mi ci li koy doxal defe naa du bëri yéen ñaari mbir itam mérité ngoon ko parce li tax mooy ku topp seen carrière du ngeen tirise ci bëri kon defe naa Alaaji Papa Dieng ñun ñu ngi lay ñaanal gudd fan ak wér di ko ñaanal sa xarit yi nga àndal waaye di remercier waa Vox Arena rawatina le DG Aline Badara Diouf ñu lay ziar bu baax a baax di nuyu tamit sama mbokk presse bi parce que ñoom man jaral nañ ma lépp dama koy wax di ko waxaat foo ma nekk seen mbir du fa yàqu bu soobee suñu borom parce que nag ah la fañ moog borom mi mbaa may ànd yaa ngi dégg man awma ñen ñu dul yéen maa ngi leen di yéen ñëpp du ma lim ma xanaa ma jël kenn rek teg ko ci bopp bi muy suñu grand di suñu président loolu tamit waa Vox Arena grand maa ngi lay nuyuwaat buur mais candu di la wax ne ñoom Vox Arena dañ defaat lu am solo dañ jël Baye mooy junior ak ki nga xam ne moom mooy Fourier jagleel ko prince en ligne bi drapeau Modou Mbaye xam nga loolu tamit respect la te yooyu dafa jar a wax ma lay nuyu Modou mbay des stv yow su ma euh, nu ñu suma waxeeti su nga ci métier mi di nuyu suma grand bii càndum yéen ñëpp père Max Margan moom moom moo ma formé dama koy wax di ko waxaat waa ca rajo yi ñu daan fa dugg ak lu ne père itam defe naa kenn du ko laajte nuyu jotaay bi yëpp daal di ñaan Sénégal yal na fi yàlla def jàmm ah léegi nag li ñuy def rek parce que temps bi dafa gàtt comme ni ko nit ñi waxee li ñuy def mooy jox ki nga xam ne moom mooy Alioune Badara Diouf micro bi mu wax lan moo waral ñu tànn Alaaji Papa Dieng tey dañ koy delloo njukkal ndax defe naa nag net li si làmmiñu borom dàqe olof Njaay ko wax. asalaamaaleykum mbooloo mi euh, ñu ngi leen di nuyu euh, ku si nekk si turam ak santam di sant yàlla bu baax nag ci lañu ñu fi dajale tey euh, di nuyu. suñu papa yi nga xam ne teew nañ fi euh, di nuyu aussi presse bi di nuyu aussi presse bi c'est bon waaw ñu ngi nuyu aussi presse bu baax parce que xew-xew yu mel ni moom toujours presse bi daf ci am taxawaay bu am solo di nuyu aussi ñi nga xam ne ñëpp ñu ngi yëngu ci activité làmb euh, du ma lim mooy ñëpp rek ñi nga xam ne bokk nañ si làmb maa ngi leen di ziar bu baax di nuyu aussi waa restaurant bi nga xam ne ñooñu ñu dalal fii tapis vert voilà comme ni ko baba Babacar waxee euh, lépp baax na lépp neex na di sant yàlla bu baax. Euh, je m'en vais benn bref présentation rek bu Equivox euh, parce que ñëpp ñu am na ñuy dégg Equivox dégg Vox Arena peut-être mën na am jeexi jaax duñ comprendre c'est-à-dire Equivox c'est un groupe un groupe boo xam ne groupe de presse la boo xam ne dafa am ay. émission yoo xam ne ñoo nekk ci biir Equivox TV Equivox TV presque en ligne la comme ni ngeen ko xamee donc am nañ émission buy yëngu ci wàllu santé yi wàllu école wàllu leneen ak leneen mais bi ci gën a fës xaj na mooy lamb ji nga xam ne moom ñëpp niñ ko xamee mooy coow da ci nekk ak engouement boo xam ne euh, vraiment euh, loo xam ne jëgaade ko la suñu sport national la donc loolu moom boo ci yëngoo rek foog mu am coow Vox Arena nekk label c'est un label international Euh, de production et de promotion d'événements de sport de combat voilà ak culture aussi mi ngi ci biir donc nag ñu doon liggéey liggéey bu am solo ci làmb ji euh, di ci def ay reportage di ci def ay émission ba ràññee ko ci loolu comme li may faral di wax chaque fois nu on n'est pas là euh, pour se faire remarquer dans le milieu mais plutôt à faire des choses remarquables boo defee lu remarquable nag ñu remarqué la donc loolu la voilà bi ñu yëngoo ci làmb ji ba am ci taxawaay bi am solo ñu jël émission boobu nga xam ne mooy Vox Arena ñu labelliser ko labelliser ko dugg ci événement événementiel kii di événementiel nag fii Sénégal ah sport da ci am doole lool lool lool euh, donc euh, sport nag làmb gën cee fés voilà loolu moo ñu dugal ci làmb ji mu nekk un groupe de jeunes boo xam ne euh, c'est composé de ressources humaines boo xam ne de qualité la am nañ ay experts dans tous les domaines ñu toog réfléchir xalaat bind ay projet yoo xam ne dañ ko fisale ci ni mu gën a rafetee ñu ne daal ah dañuy commencé dugg ci làmb ji am nañ ay expert nag yoo xam ne ci làmb ji lañ nekk ñoo xam ne ñoo ñuy accompagner ñu réfléchir taxawal ay combat en bref loolu mooy euh, li nga xam ne nii résumé bi ma mën a def ci Vox Arena le choix nag bi nga xam ne porté nañ ko ci suñu papa bi euh, moom référence la mm-hmm. source d'inspiration la pour jeunesse bi mm-hmm. parce que ci domaine bool lamb comme nañ ko waxee ci côté sport kàngam la ci man keroog bi ñu demee këram rek mag naan ko am na sa benn émission du ma ci doyal mooy bi la booy Modou Mbaye seeti jee sa kër keroog ni ñu doon décortiquer combat yi combat par combat loolu damay toog sama kër tout le temps di ko seetaan donc mu nekk koo xam ne ñu toog seetlu en tant que xale bon gisaguñ dégg nañ fi drapeau drapeau ku ne dégguñ drapeau ñu ne mais pourquoi pas ñu rendre hommage pa bi de son vivant mu nekk vraiment loo xam ne nii euh, dañ ko yëg voilà loolu moo tax ñu porté choix bi ci moom fexe aussi jeunes yi xam ko inspiré wu ci moom ñu xam li mu liggéey Sénégal li taxaw ci dëkk bi parce que loolu aussi dafa rafet te incha allah fas yéene nañ dem fépp fu mbokkam nekk tànd ko micro mhm. ñu wax li ñu xam ci moom mhm. waa dëkk bi ñi nga xam ne xamuñ ko mën a xam lan la fi liggéey ak lan la représenté pour Sénégal mhm. donc loolu nag li ko gën a sabab aussi mooy suñu frère Youssou Dieng mu nekk koo xam ne lu Equivox dugg mu dugal ci loxoom donc loolu aussi dañ koy dañ koy fësal quoi. waaw moom daf ñu accompagner nekk suñu waaye nekk suñu xarit jàppale lañu ci lu bari. waaw yombalal ñu aussi lu bari d'ailleurs fii nii ñu defee affaire bi sax moom loxoom mi ngi ci. Hmm. da moo ko démarché. donc loolu daal vraiment euh, moo nekk li nga xam ne ah moo tax ñu porté suñu choix ci moom te kontaan ci lool nag di ñaan yàlla defal ñu jàmm. ba nga xam ne journée boobu nañ ci mën a yegg am na yeneen combat nag ci toftaflu ba Babacar wax na ko léegi. mu nekk journée boo xam ne dañ ci fas yéene def lu mucc ayib ci côté. moderniser un peu euh, la façon d'organiser xam nga moo tax ñu indi G5 bi. voilà cinq drapeaux cinq ci benn takkusaan boo xam ne benn bu ci nekk dafay am parrain am. Hmm. après cérémonie bi dina am yeneen cérémonie yoo xam ne présentation de tous les drapeaux lay doon loolu aussi buñ ci yeggee dinañ leen ko informer. Hmm. di ñaan yàlla defal ñu jàmm ba nga xam ne mbas mi dina fi gaaw a pour nga xam ne li ñu am ci programme yëpp ci année bi. am nañ aussi perspective organiser yoo xam ne ci lutte donc yooyu yëpp bu ñu demee ci kanam incha allah dinañ gën a dérouler vraiment ñu ngi kontaan di gërëm aussi suñu papa per babu ak euh, père Max ñoom tamit ñoom suñu ay paalañ voilà di gërëm aussi coach Mamles ak Assise ñooñu c'est des consultants yoo xam ne Equivox lañ nekk équipe technique yi fa nekk yëpp c'est des yoo xam ne vraiment dynamique di liggéey liggéey bu rafet ñoom El Hadj Khoule Babacar reporter ñoom Cheikh Omar vraiment rafet na quoi ñu ngi ñu ngi di leen gërëm bu baax a baax a baax di ñaan nag yàlla defal ñu jàmm bañ yegg ci li xam ne moom lañ dëgmal baax dañu leen baax bu lépp jeexee culture moo fi des muy aada ak cosaan ñun am nañu lu nga xam ne mën nañ ko tiitaroo wane ko fu nekk muy làmb bu ñu ko taarale donc tey ngeen ñëw dugal seen loxo ci làmb en tant que des intellectuels ñu ngi leen ciy gërëm nekk aussi ñu nga xam ne keroog bi ma euh, may Seck woowee ni ma alaaji Papa Dieng la ñu tuddee drapeau bi mais dama ko ni xaw ma kan moo leen xelal xaw ma kan moo leen inspiré mais franchement li ngeen def xamu leen ko sax. Mhm. te bu bés baa ngeen di xam ne li ngeen def xamu leen. Mhm. parce que ki ngeen ko tuddee moo toll noonu alaaji Papa Dieng nekkatul alaaji Papa Dieng kenn. alaaji Papa Dieng nekkatul alaaji Papa Dieng benn télévision wala benn rajo wala benn groupe de presse. Mhm. c'est un patrimoine national. parce que dama daf ma ko wax ma ni ko day jëmb ju nga xam ne waxam rafet na waxam teggi na. waaye tamit xam-xam da koy lan te xam-xamam dëkkee yéwén donc mooy li Max wax rek lu baax lay wax lu baax lay xalaat lu baax lay jëf donc nit la ku nga xamante ni ñun ñëpp ngeen tudde drapeau mhm. parce que c'est un homme multidimensionnel il n'est pas qu'un journaliste sportif mais il est multidimensionnel te loolu yàlla moo koy jagleel doomu aadama mhm. dama nit ñi ni tekk di la déglu mhm. te loo wax kenn bi ca mën a dindi dara jagle yàlla suñu borom. l'art de la communication est un don de Dieu. Mm. yàlla mooy seet ku ko neex mu jox mm. kon moom dañ koy ñaanal gudd fan ak wér gu yaram. parce que il faut qu'on arrête de rendre des hommages à titre posthume. yàlla nañ ci yàlla mos. amiin nit buy dund amal réewam njariñ ci moment yooyu dañ ko war a delloo ñu. donc moo tax ki ngeen ko tuddee dimension bi mu toll bu bés baa ngeen koy xam. Mm. juróomi drapeau. mais ñun drapeau bi daal moo ñu soxal. mooy suñu drapeau. te El dañ koy wax na croiser les bras toog ñun li ci des lépp ñun ñoo koy def. parce que nag c' est notre doyen. c' est notre fierté c' est notre référence. te dëkk dafa war am ay références. te ay références dañ koy wan ndaw ñi. di leen kii bu ko defee ñu mën ci inspiré wu. pour que ëllëg ñu mën a dem fu sori. Mhm. parce que réew bu ñu demee ba perte ay références. bu boobaa ndaw ñi dañuy jaaxle ñu xam fan lañ ko donc on est arrivé à un stade où les références se font rares ou bien dañuy suul ndaanaan mhm. te alaaji Papa Diagne ndaanaan la dañ ko war a yëkkati ba réew mépp xam donc bés boobu nag yàlla nañ ci yàlla yóbboo jàmm may ñu fekke ak tal ñu koy ñaanal doyen vraiment bés bi moom kontaan nañ ci loolu beneen bi ci des moo di presse en ligne commencé na bëri te xale yi dañuy jàmbaar bëgg métier mais li ñu ciy daj amuñu ko ci. ils n'ont que la passion du travail. la passion du métier. amaana sax bu ñuy dem dañuy kol tol tolaan paas bu leen indi. bu weer dee amaana du ñu tàllal seen loxo. mais foo leen i ci terrain bi ñiy ay centaine de mille ñoom ñoo leen a nekk jàppal. kon ñi dañ leen a war a jox seen cër te pourtant ay difficultés rek la ñuy parfois ñu dem fu nga xam ne dañ leen fay xatal. di leen di leen tuutal di leen ñàkkal fayda alors que euh, li ñuy wax mbaam tuut na waaye ci jur gi la bokk. donc bu ngeen jëlee drapeau tuddee ko la presse en ligne. Euh, Bour Gueweul ñu ko ciy féliciter encore une fois et je pense que ce jour-là la presse en ligne war nañu wone seen bopp mais également wax seen bopp wax seen ay jafe-jafe wax seen ay doléances parce que c'est une tribune la lutte pour wax lu ngeen bëgg a wax parce que ku bëgg a siiw fii ci làmb ngay jaar. ñii ne bu doon ne xaalis la ñuy wut duñ leen tuddee drapeau bu doon ne alal la ñuy wut duñ ko tuddee alaaji Papa Diagne mais dañuy seet ay valeur ñu koy promouvoir et c'est ça qu'on l'a donc ñu ngi leen ci ñu ngi leen ci félicité bi leen encouragé ci loolu la leen di may xaalis du benn politicien wala benn borom barke bu nga xam ne tudde ngeen ko xaalis mu ñëw ca bés ba duy tribune bi ba mu fees du leen indil dara. loolu du mbir mi mbir mi mooy seet ñu nga xamante ni nii dañ leen war a jàppale ñu jàppale leen seet ñu nga xam ne dañ leen war a yëkkati ngeen yëkkati leen loolu mooy affaire bi. Mhm. la vision est novatrice et la vision est sanitaire on vous encourage sur cette voie. merci li ci des nag Max wax na ko ba pare. combat yi moom jarul ñu ci dellu. yéen combat yi man dama damaa xamul ay gan yu yeewu béy ngeen xaw ma ay façon. waaye gan la ñu nga xam ne xam naa am na ñu nekk seen ginnaaw. ay ay ndaanaan waaw ah, parce que am na lu ma boo gisee rek xam ne fa jaar. li ko wax léegi waaw waaw xam bi combat bi rek man man combat bi rek jaral ma. jaral ma xëy fajar ca instant. Eh. ñaar ñii. non El Hadj Papa Diagne bi ñu la tuddee garaaw na de. dëgg la combat bu mag. xaw xaw ban ñun dañoo joué arrêt central milieu de terrain avant centre. avant centre boobu la ñaar ñuy jëm ay attaquant moo tax foog daje am foog daje am ñaari attaquant la ñu ñaari mbër yooyu ñu nga xam ne dañu am fukk am détermination am technique mën a bëre. mais mais mais El Hadj Malick alliance caatu géew. non kooku alliance. alliance bi nag caatu géew la. moo tax caatu géew boobu bu ñu jël orange balaa ko fekk. ah bu dee caatu géew ma ne ko caat xanaa seen kër. am caat dina bëri. am caat du bëri. <laughs> en tout cas. mais daanaka la xale bëri. mais daanaka la vraiment Babacar loolu rek la ñu amoon lu ñu ci lu ñu ciy wax. am na Alaaji Papa Diop yal na ko yàlla yàggal suñu kanam. Euh, te ni nga def ci ànd ak say nit yi démb. Euh, loolu yi tamit ndaw ñi dañ ci war a jàng. ndax bari na ñu nga xam ne bu ñu amee rek fàtte seen nit yi dem. dëgg la rawatina Pape moom di amateur lamb bu mag. voilà di amateur bu mag nag. vraiment. moo ñu yàgg mu ànd ak ñu nga xamante ni nii. démb la. tey jii mu mu ne leen ñëw leen ñu dem bu ko neexoon la république ah parce que bari na kilifa yi nga xam ne pour ñu kaay ñu dem nga jóg. mais dafa seet ay ditu démb mu ànd ak ñoom tey. alaaj Malick Pape Demba di yeewoo Pikine faral Fass ba di dëkku lam Moussa ñi ngi sax bëgg nañu ñëpp jox tey xam nga bëgg-bëgg Moussa ji bëggoon na ñëw mais dafa am ngànt dernière minute en tout cas noonu ñi koy laal donc Babacar dañ nga nga euh, avant na cër bi ñu jox la rek mais buñ la bàyyi woon aussi di nga déroulé mais vraiment euh, encore une fois merci au groupe Equivox. yàlla na leen yàlla may ndam ci liggéey bi euh, ñu ngi leen di ñaanal bu baax. Babacar bi nag suñu rakk la ñu dénk leen ko bu baax. incha allah dénk nañ leen ko parce que jàmbaar na bëgg na métier bi sopp na. curux curux la fu ne lay def. waaw waaw jërëjëf bi daan la fu ne curux la. léeg-léeg mu gàddu micro bi ma ne ko bugguma la ci ngaa ko bu mer. baaxul. ayca ñu bàyyi ko mu déroulé merci beaucoup Alé Gaye. jaajëf Kara waaw waaw kon ba tey loolu am na solo defe naa ne yii dafa war a génn baax parce que jotaay yu mel nii yii daf fi war a génn. waaw parce que lii buñ ko tey ca du baax. parce que ay njëriñ la waaw papa. waaw père Ba wax nga non loolu foofu foofu mu sànni ci kàddu. père. wala yaay président wala yaay président déedéet yaay président mën max wax na li ma bëggoon wax lépp wax max dina dox mi max. max directeur technique la. max directeur technique la. yaay président mën ma bëggoon wax ñii ñëpp wax nañ ko. Ah. Euh, ñi fi wax ñëpp. waaw eh. euh, maanaam maanaam yow. waaw donc tey tey ñi ne fii ci saal bi moom pour ñu jiituwul ci làmb yi. waaw caméra yi ñi ñu euh, ñoom Mbacke su waxee. Euh, wax. ñi fi nekk ñëpp wax. daanaka jërëjëf mu wax Pape Dieng moo baax la ñu wax. wax hmm. suba arena la ñuy def kenn mësu koo def. li defal defal defal nañu la loo xam ne si. mérito nga ko. te yaa ko moom. Mm-hmm. te kii dafa wax sànq Malick Thiam dafa wax ne ñii tey dañu doon dañuy ñëw léeg-léeg du ñu am paas. Mm-hmm. loolu moo jaar. fa laa jaar doon ñëw aaral Sénégal fa laa jaar man ñëwee bu ñëwee du ma paas bu ma duggee ci biir làmb ji di ko jaayee ba làmb tas ma ànd moom ñibbi ñun ma kan moo daan ma wax ma laaj ko kan moo daan mu wax ma ko ma ñibbee damay ànd ak damay dem ci suñu waa kër mel na man duggoon laa ci biir làmb te jour ba may dem yëgu ma kenn yëgu ma Euh, wax bi daal euh, jërul bari. xanaa di sant ñëpp di di gërëm di gërëm ñëpp. waaw parce que loo loo jàngul rek. loo loolu nekkul sëriñ euh, ndongo li doo nekk sëriñ bi. yàlla nañ ci yàlla ak yonent ba ak sëñ Basiru Mbàkke yóbbu maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp ba sonn. waaw waaw lii ci la bokk du mën a ñàkk père koy faral di wax rek. Modou Mbaye tamit defe naa parce que li ma man dafa am jéeg. waaw mais dafa am lu ma baat wax rek. dama dem kër kër mu am wax ci yow. defe naa loolu dafay kaw parce que dama ko fekk mu ne sama bàll bi mu mu ci woon a wax. Mm. mais Malang Signor Ndiaye. ba xëy xëy indi bagaasam ci kër gi teg na ko moom force di nga wax. parce que muy jógee tar bi ñëw sama bàyyi ko yow lu ma dénkoon. mu ne Modou Mbaye ak Malang Signor Ndiaye bunu aw ma lu ma leen def ndax Golbert Bécaye. kon defe naa tamit loolu. la tax mu wax ko war nga caa mën a am loo ci sànni defe naa bu ñu koy sànni. jërëjëf jërëjëf maa ngi lay ziar bu baax baax baax kontaan ci yow. jërëjëf jërëjëf ñaanal suñu borom defal la si am. amiin yàlla defal la si am. ci am suñu papa yi amul. ci barke moom liggéey bi rafet na trop. liggéey nuyu ñu fi teew ñëpp di nuyu Equivox ci liggéey bu am solo bi ngeen di def déjà parce que. comme ni ko Babacar waxee nit bu ñëwee ci mbir boo yokkul da ngaa wàññi te ñëwee li ngeen li ngeen commencé def ku leen xool xam wala ku leen suivre dina xam ne yéen a ngi yokk parce que ku di ku dugg parcelle jël Garga ku xam Garga ci taxawaay ci tolluwaayam ci làmb hmm. xool Garga fi mu jaar ci làmb hmm. nga indi ko ci làmb ne da nga koy tëggal combat bu mag koo booleel xale bi nekk ci yoon xale bi nga xamante ni ci ay moom man mën naa ni carrière ci début bi lool fi mu lépp mën naa ko kóoris mën naa mën naa kóoris tey. Hmm. tey nga boole ñaari xale yooyu ci bis. loolu rek doy na. ñëpp da ngeen wane ni da ngeen a ñëw ngir yokk. Hmm. léegi nag da ngeen a def loo xamante ne damay faral di dégg sama papa. di ko jaay ñoo ko bàyyi naan seng wala ko daan wax naan il faut s'enraciner avant de s'ouvrir. ouverture oh. boobu ngeen bëgg ci àddina. Hmm. fii ngeen enraciné woo daaka yaakaar naa ne di ngeen ci am daal. incha allah te ñu ngi leen ciy ñaanal. bis bi nag bis bu tuuti borom moom rek lay toll. ki ñu tuddee bis bi macha allah ni mu koy waxee moom tàmbalaay lay la. waaw kii man xaw ma ko. xaw ma ko. bu may wax ci moom amaana xëy trois ans quatre ans yi ma fekkee ci moom rek laay wax. mais kii ñi ma ñi ko xam te toog di ñu wax ci moom. li ñu ñuy wax ci moom macha allah mënuñu lu di ko téye def ko leçon référence la. ki ngeen tuddee bis bi mooy ki nga xamante ne ci Sénégal macha allah sport boo ko laaj ñu waxtaanal la ci. du sport kese ci culture. ci lépp loo xamante ne nii ci politique lépp loo xamante ne nii Sénégal war nañ koo mën a xam ci doomam buñ ko ci waxtaanee ak moom daf ñu koy jox ndax xam ngeen lu roi du Marax doucement jigéen kooku kii la woon ba tey jii fii mu yegg si wax waxuma li mu papa Alaji Papa Diagne waxuma li mu liggéey ci Sénégal mais may papa Youssou Dieng rek ko mm. xale bi mën ci musique à ce moment Youssou Dieng la àndal Youssou Dieng a ko yor Mbaye doy nañu sargal ko. may Papa Sofi Dieng doy nañu sargal ko. ndax li nga ñi jur macha allah ñi ngi bëgg a topp say tànk. def li ngeen def papa yàlla leen fi yàlla bàyyi. yàlla ngeen fi yàgg. ci barke Mouhamed. ñëw bii nga ñëw tey jii tey ànd ak sunu papa Lamine Naar Diop. ànd ak sunu papa papa Demba Sall. wan jàngalaat noonu. Mm-hmm. am na ku ko fi wax léegi. Mm-hmm. sunu papa ko fi wax jàngalaat noonu. wan nga ñu ne nit lu mu baax baax sama nitu dem moo ko gën. Mm-hmm. te Dieng ñu ngi lay ñaanal ci barke yonent bi amiin waay amiin waay yàlla nañ ci am ndam lu kawe. am ko te fekkee ci barke yonent bi. man damaa ngi ñaan waa Equivox bu dee mën nañ ma ko may. dëgg si bi ñëw def direct bis ba. waaw waaw loolu mën naa ko si suuf Equivox mën nañ maa may lool. dëgg si bi ñi ngi ñaan yàlla bis boobu ngeen may ni ko ñu def ko direct. waaw kii. liggéeyal na ko 2S. na ko Sénégal waaye man mii jàngal na ma ko. waaw waaw dégg yàlla sa jàmm yàlla. amiin na fi yàgg ci bàq. alaaj bekkaay bëggoon naa yegg si waaye déggante ngeen yéen ñaar ma si wax. kontaan nañu bu baax a baax gargaar maama Lamine. yéen a ngi bëri combat ci at man sa taalal nañu ma micro ma wax ko. man combat bi dàq ci at mi maama Lamine ak gargaar. Hmm. ndax dañoo boole ñaar ñoo xamante ne nii yaakaar naa wax ji moom leer na laaj te comme li nga wax léegi li nga wax sànq muur rek ci musique bi xam nga gerte daf ma wax loo xam ne ci diggante bu Youssou Ndour loolu defe naa bu ngeen ko seetaan di ngeen xam ne kii lu ñu wax ci moom doyul doomam tey defe naa ku dégg Wally Seck ah kii bu dul grâce à moom tamit quatre-vingt-dix pour cent yi mu nga ci biir defe naa kon loolu nag maanaam li père Max wax ak ndaanaan ay jur ndaanaan yàlla yàlla fi cat rek barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam mais père yaa koy wax xam nga ah euh, xati bi tax bokkam ndax ñoo bokkam yéen. te suñu grand buur géwél. waaw hmm. mënuñu ñoo tudde drapeau mu nekk Dakar ak suñu président. ah faw ñu jox ko kàddu mu wax. waaw. waaw kii suñu grand frère la grand moom tey reportage bi ñu def ñun ci presse en ligne bi moom moo taxaw nañu kaay leen nag di organiser wu ba am kuréel parce que loo gis dañu ko organiser bi su ma daal ba taram ko ak waa kuréel bi am lu ak lépp defe naa kon bu ñu mën a def loolu daal ñaan ko yàlla suñu mag la ñu képp suñu royukaay te ci moom la njëkk a gisee kuy def reportage su lamb si président yi ak Sénégal defe naa moom moo ko jëkkee yaa ngi dégg te olof ne na jinax moom bu njëkk a tëb danañ jinax yi waaye bu njëkk a toppati jeneen na nga lay wax moom moo njëkk a tëb maanaam yaay jinax yi ñun moom jeneen na nga lay même nuyu am nuur moom tamit li père Max wax sànq ci ginnaaw yi ki bopp moom mu ngi ci ginnaaw bi piyaanu loolu rafet a rafet macha allah oh, jërëjëf Serigne Babacar <laughs> jërëjëf mbooloo mi ñoo ngi leen nuyu di leen ziar di leen ndokkeel may sant yàlla di julli ci alayhi salaatu wa salaam di ziar ak ndokkeel sama sang ba Mawlana Cheikh Ibrahim ibn Sëriñ Mbacké Madina waaye di ndokkeel borom béréb bii nag fifty mhm. borom baax naay un jeune très très très dynamique et engagé waaye nit koo xamante ni que lépp lu mu amee ci biti rek yéene na ko waa mhm. kon gaa ñi tappi bee rek nii ku ci bëgg a jogonal bi ñëwal ku bëgg a leer maa ngi couple ak madame bëgg a dékki ñëwal. waaye na bi tamit daal. buur yàlla bàyyi leen. amiin président Lamine Gueye bu baax bu daan wax naan monter est facile mais monter et rester soi-même c'est ça Gueye. alaaj papa la paix ci mooy saa yu waxee kat doom dara luy féewale wala luy yàq. du la ko ci làmmiñam dem ci noppi doo sañu ko. sañu ko rajo Ndiaye Coumba dafa ne bu ñu sañ naa ñaan leen ne nañ mu ko defal de moo vivant waaye tey foog su aréram suuxat nañu wax jooju dëggal nañu ko nag li ñuy defal alal ji baax na mu gën fee yàgg. ndax réew mi dafa am ñoo xam ne bu ñu dundee njariñal mi. Mm-hmm. njariñal nit ñi la njariñal doomi aadama yi tey bu ñuy tuddee a alaaji Papa Dieng drapeau dañuy wax ni tuddee nañ ko réew mi tuddee ko fi alaaji bi seen fay tuddee fi alaaji bi Ndiaye Kumaro tuddee fi Hadj Mansour Mbaye bu baax mi ñu fi kon bu rendre la monnaie mag ñooñu ak ñooñu nga xam ne ay waxkatu defkatu lu baax la ci réew dafay encourager la nouvelle bi topp seen kanam. xam ni que lu baax rek moo. jaral roy te lu baax rek moo jaral wane lu baax rek moo jaral hmm. ñu jëlaat beneen drapeau ñu tuddee nañ ko les reporters de la lutte en ligne bi may gàddu sama micro ak seen bëri ñëw ci làmb yi daan ba mu yàgg mu ne yow li nga may jël mais dama mës a gëm internet. waaye ñun tamit ñun ñu ne ci làmb ji def internet ñun ñoo mën a dimbali làmb. gën a defaral suñu toogaay mooy nous sommes devenus très très nombreux. waaye li ñuy bari bari bu ñu jëkkalee lu ñuy def ñàkk ko bañ a di xool lu ñaaw di ko wane. bañ a di jéem a topp le buzz. bu boobaa dañuy bokk ci ñuy def. Mm-hmm. tey support bi ñëw support bu puissant. mooy bu fukki nit di toog ca saal may seetaan mu Modou Mbaye Modou Mbaye balaa mu ñibbi kër mu Modou Mbaye lay xool ci téléphone. donc jàppal ni chaque Sénégalais boo gis mu dugg ci oto mu ngi téléphone te Sénégal bi yor na téléphone. Mm-hmm. mais nañ ma jukkil benn Sénégalais buy xëy suba ba ngoon te connecté wu ci téléphone. amul donc faisons très bien attention ci li ñu wax ak li ñuy wax ci internet bi. Mm-hmm. support bu mën a yàq addina bu mën a yàq ay sëy la bu mën a geddloo ak njaboot la. bu mën a tas ay kër. et du le buzz lañ ci war a wane liñ ci mën a def bari na. liñ ci mën a def mu yokk bari na man buur de nee naa maa ngi gis ci Cheikhul Khadim ne ñaanuma yàlla wax luy ci wala luy bett c'est askan. ruus naa ko ndax ku ma ko bokk ma ci benn groupe bokk ma ci benn camp waaye su ma nawlee yu baax yi nga xam ne ñoo créé association bi jiital ma naa leen man maay seen man maay seen jàpp. ndax yéen a ma yebal dénk ma kon man maay seen jaam kon bu ñu jëlee drapeau nag tuddee ñu ko à pël problème la ñu bëgg a am. attention wala papa Ndiaye sa kër lañ lay jël sa kër lañ lay jël see man te man buur bu baax pyjama wala peignoir laay indaale sa kër ndax moom laa yóbbu la <laughs> am non drapeau laay papa Ndiaye warut a warut a yaa ngi bëgg a am bës de. <laughs> non c'est que la majorité foog nga créé loo xam ne musta am. papa ñu ñaan yàlla. dama ciy fent way. way loolu daanaan yëpp. jëndalu Youssou ah, boo ko waxee nag le grand directeur artistique way wu rëy kon mbir maa ngi noonu Youssou. jeex na di ñaan yàlla. mi nga xam ne mooy buur mbas mi. yàlla na ko suñu borom toxal te jëlee ko. amiin jëlee ko ci at mi yëpp yëpp yëpp. li Père Max wax rek ñun waa Lamb benn monde bu intelligent lañu. benn monde bu bien averti la ñu monsieur le ministre jàppal ni boo ubbee làmb ji bàyyi ñëw ñun waa làmb dinañu xam naka la ñuy jëkkalee suñu jotaay. dëgg la ba li ci war en respectant toutes les mesures barrières et sanitaires ñun waa làmb xam na ko. ñu def bu ubbi ko waa football a waa basket set waa course épique nañu xam ni que làmb nag faral naa ne nekk na ay ñun civilisé. en tout cas boxe arena yàlla na leen demaat ngeen vingt émission la. amiin amiin nga xam ne vingtième émission bi da ngay jàpp bant yi. amiin amiin da ngay sànni dënd yi ci sa kanam mën naa dox waaye mën nga dox. jërëjëf jërëjëf gars yi jërëjëf Amathane sama goro wala moom frère bi nga xam ne ah wax ji moom waroon na ñàkk parce que jataay bi moo laaj loolu. yaa ngi dégg jataay bi moo laaj loolu. kon di santaat yàlla rek léegi nag dañuy dem ci taabal bi. ah grand Thiandoum defe naa ñaari mbir yu war a njëkk wala ñu dem ci parrain bi parrain bi d'abord. kon nañ dem si na solo moom dana foog ñu koy ñaan fan yu mi. ma leen di sant di leen nuyu di leen gërëm ci ñëw bii ngeen ñëw fii nga xam ni mooy tapis vert ñu war fee waxtaan di jëm ci làmb ji nga xam ni Vox Arena ñoo ko tëgg diggante Mama Lamine ak Garga 2 muy komba bu mag a mag boo xam ni booy seet ci combat yi am yëpp combat bii defe naa moo ci dàq combat nag du caagi ñu mbër yi yàgg nañ ci làmb ji wala xam nañ leen wala am nañ tur combat dafay nekk loo xam ni ñaar ñi ngay boole ku ci nekk da ngay xarañ xarañ goo xam ni bés ba bu jotee kumpa day am ndax kenn du xam kuy daan. ñoom ñaar ñuy toog sax kenn xamul loolu mooy làmb. ma leen di gërëm bu baax di leen sant di gërëm tamit Youssou sama doom sama taaw bi nga xam ni lépp moo ko dox. puisque man presse laa nekk mais bëgguma presse. damay toog kër ga presse ñëw sax ma leen du ma wax mais leneen sama yaram daw gis xale yu jigéen comme li ngeen wax jóge fu sori ñu ma papa jàppale ñu rek ndax bëgguñoo dellu ca rajo ba wala ci télévision ba lay mel ni ma comprendre leen parce que loolu daf ma daan dal dama daan seeti nit mënu ma du ma wax mais ma naxanteeg moom ba ma wax te nag presse bi lu jiin njaag te ñooy njaag ndax lu am te buñ si bokkul du am maanaa kon ñu leen di sant di leen ñaanal di leen wax nag condition yi ngeen nekk ku réussir ci presse ci la jaar man jaar naa fu gën sax fi ngeen jaar ndax boobu su defee mu ngi soog a tijji ñu war a couvrir événement yi te boobu à part rajo Sénégal benn rajo rek boo fi amoon ñoo amoon ay difficultés yu mag dañ daan dem sax ñu ne ñu doo leen dugg mais man gars yi ne naxante rek parce que lépp day jeex tey jeex na. Mhm. tey rajo yi bëri nañu. mais gërëm tamit suma xarit yi nga xam ne yàgg naa ak ñoom ndax Pape Demba mii toog. carrière mbéy gi yëpp man ak moom ñoo ko ñoo ko dox ak sunu mag doy naar Fall. dem yóbbu yóbbu woo son a erreur da koo gën a waaw li ñuy def nag mooy maanaam li ñu fi wax yëpp defe naa li duuf ci nag wi xajul ci cin li parce que bu ñu fi toogee di waxtaane lam père max ak mag ñi xam naa ba suba dina kii léegi li ñuy def garga 2 bu dóor dóoraat wala bokk bu jàmbaar wrestling académie ndax léegi jóge na dóor dóoraat ci ñoom sos léegi papa sow la bokk léegi mais lépp ci biir parcelle la parce que à parcelle 1 ba 26 amul xaaj ak seen ñoo bokk ndey ñoo bokk baay kon garga yow la ñuy jox kàddu gi drapeau Alaaji Papa Dieng sargal ko ñu ngay bés bi yow ak Maama Lamine looy wax ginnaaw bi ñu sant yàlla julli ci ñu ngi nuyu ñu ngi nuyu ñëpp ñu toog fii muy journaliste yi di nuyu ñi nga xam ne ñoom laa àndal di nuy sama papa alaaji papa Dieng di nuyu sama adversaire Mama Lamine ak ñi mu àndal ñëpp ah di nuy ñi nga xam ne ñoom laa àndal sama si Basirou baabu di nuyu père Max di nuyu sama mbokk kajoor kajoor bi borom ngaay waaw maa ngi nuyu bu baax a baax waaw di nuyu di wax ni lii nag am na ci mbégte bu baax a baax parce que wax dëgg yàlla ñun ñëpp dañ feete la ci ñun ñu bëree combat boo toll nii suma drapeau alaaj papa Dieng bi nga xam ne moom la tuddee làmb ji am na mbégte lool pour bëre ko parce que dañoo ñëw fekk ko ci làmb bu yàlla dogalee ñu tuddee bis bi moom jaral na ni ñu teg suñu bakkan ba bis lépp lu ci laaj ci réussir rek ñu def ko parce que nag surtout ci côté violence bi ñuy wax ci làmb ji ñu ñaan yàlla ba violence dañ jàmm parce que moom bisam képp ko xam xam ne ci jàmm rek lay dox comme ni ñi ko nit ñi waxee. di ko wax ni ko daal làmb ji lépp lu mu laaj ñun dinañ ko def pour làmb ji réussir ñun ñaanal nag waa Equivox bu baax a baax parce que ñun am ñu fayam parce que man naa trois ans bëréewu ma ñoom ñoo ma génn ci lu ma nekkoon kon suñu ñëwee tuddee làmb ji faaw ñu def suñ fulla ak fayda ba làmb ji réussir daal maama Lamine combat bi xam ko fonk de loolu moom bëgg naa nga xam ko bu baax a baax di nuyu di nuyu nag ñi nga xam ne ñoom laa àndal ku ci mel ni Pape Ndiaye ah Disco Diak moo ma ñawal lii xam nga di nuyu sama goro Tamsir Dieng maa ngi koy nuyu bu baax di nuyu soxnaam di nuyu waa kër gi yëpp. di nuyu sama non parce que comme non Mama Lamine xam naa ko bu baax parce que champion la li tax ma fonk combat parce que dama jóge ci défaite toog 3 ans bëréewu kon su ma ko jëlee jëlu ma ko pour daanu ma ko jël pour ñëw daan ko pour wuti leneen loolu tax ma wax comme que ko fonk bu baax. ñoom nuyu na sama mbokk kajoor kajoor yépp waa ndànd ba d' abord di leen jaale suñu tante ji fa jógee démb muy maire Daba Fall ñu ngi koy jaale famille bi yëpp di wax ni dëj bi incha allah dinañ ci teew bu soobee yàlla di nuyu leen xam nañ ko baax leen kal xam ci moom nag dañ koy denc pour waaw am na loo xam ne ñoo koy denc bu bis baa ñu exploité ko incha allah rabbi jërëjëf di ñaanal nag sama mag sama xarit Papa Sow comme baam bi ñu jëm yàlla defal ko ci ndam ñoom franc ñoom ñëpp ñu ngi leen di ñaanal ndam bu sedd bi ba mu benn werante mu loo nag di ko ñaanal roi des des fi jërë ngeen jëf merci beaucoup. am na solo. léegi maama Lamine la ñuy jox kàddu gi moom mi nga xam ne moom moo jógee Lamsar war a bëre sargal Alaaji Papa Dieng père Max Mbargane indi maama ñu ngi lay nuyu di la ziar. asalaamaaleykum mbokk ñu fi toog ñëpp maa ngi leen nuyu ci nekk sa tur ak di wax onge bila bismillah inna wali yàlla jërëjëfe borom Touba. maa ngi sant yàlla bu baax di julli ci yonenteem bu tedd bi di gërëm sumay ñaari waajur di ñaanal suma papa fu mu nekk yàlla na ko gënal fu mu jógee di ñaanal suma benn mbokk mi nga xam ne daaw wàññeeku muy baabu ñu koy ñaanal yàlla suñu borom xaare ko àjjana di ko jaale soxnaam waaw di jaale aussi tamit sama maam taalibe Ngom dafa wàññeeku di ko jaale suma tànn Fatou Seen di ko jaale mbokk yëpp waaw di nuyu suñu papa bi toog fii muy alaaji papa Dieng ñu ko sopp lañ ñu ko bëgg lañ waa yàlla bu defee nag tey ba ñu yegg si fii tey war a bëree drapeau kon loolu yaakaar naa ni sens la si tamit mérite la parce que ay ndaw lañ nekk ci làmb di nuyu sama adversaire aussi tamit muy Garga 2 di ko nuyu di nuyu ñi mu àndal di nuyu aussi man it ñi ma àndal yee di leen jaajëfal bu baax a baax wax di leen wax rafetlu naa émission bi rafetlu naa teewaay bi loolu sax macha allah. Mm-hmm. waaw dina ko fonk dina ko fonk ndax dama am lu ma ko waxoon lu am solo. nee naa ko maalaw labbaak maalaw birima maalaw mesa penn joor kooku lu ne lay defar waaye moom bu bis baa dinaa ko tegal téeméeri ngalantiir ngalantiir ak téeméeri sabar di ko wayal ay maamam kumba lawbe gaas gaas a waaye gaas bu boobaa moom du yëngu li ma ko nar a dinaa ko taggal ay maamam te du yëngu te combat bi li tax mu fonk ko normal mu fekk c'est normal mu fonk parce que yaa ngi daan bëreeg koo xamante yaa ngi daan bëreeg ñoo xamante ni peut-être duñ man man aussi tamit maa ngi daan bëreeg ñoo xamante ni peut-être moom du moom moo tax combat bi lépp lu mu ko fonk rek na ko yokk et sama wax tamit baax na ci moom ndax dañ ko doon dëkkal ci noppi yaa ko mën yaa ko mën yaa ko mën loolu bu ko àndaale woon làmb ji rek mën naa am betteel na def ci boppam mbër lay bëreel te moom lépp lu mu soxla ci làmb ji maa ko gën a soxla fuuf Garga 2 dafa nekk ci ruq dafa bëgg a dem bëgg a génnaat loxo la ëpp mais man tamit dama bëgg romb gargade fekk ñi nekk ca kaw te li ma koy may mooy yàlla may ma ndam ci kawam ma daan ko jénn bu rëy ci kàttanu yàlla loolu laa ñaan yàlla waaw waane amul ci làmb mhm. làmb fu laak fayda la ak jom mais man ngor moomu ci ëppale kii ba pare wax ngeen xam ni maama ndaanaan la waaw ba pare ngeen xam ne Maama Ndaanaan waaw drapeau bi li may wax rek kii suñu papa la wax dëgg yàlla waaw buñ toogoon sax gis tele ñu tuddee ko drapeau yeneen mbër di ko bëree sax dañuy ñëw waxatuma la ak moom bisam te maanaam moom làmb la mënu kenn mënu koo génne ci làmb ñun dañuy toog di déglu suñu papa mais lu rafet lay wax wax dëgg yàlla lu nar a ñaaw mu rafetal ko te lu nar a dëng mu jubanti ko te dañ koy ñaanal yàlla suñu borom bàyyi ko fi mu yàgg fi loolu leneen fekk ko fii loo xamante ni saa bu ko gisee rek day kontaan te ñu ngi ko koy ñaanal wax dëgg yàlla. waa man damay géwal juddoo ci da ko faalik maa ko jor kumba sàmba yaa jaloor kon boo fi taxawee di wax waxi géwal yaa ngi nax say làmb Papa Dieng lépp lu mu bëgg ci bis bi dinañ ko ci defal non yow xam nga ni dinaa ñëw loolu moom jarul wax yaa ngi naan gumba an seet may doomu géwal mën a fecc mën lépp ñëw nga naan ma looy ñëwee waaw contentement daal laa ci am wax dëgg yàlla li may waxee sax waxu contentement la ndax wax dëgg yàlla drapeau alaaj Papa Dieng laay bëre rek non doy na doy na quoi te man yàlla bëri naa drapeau bu ne bëri naa drapeau abano bëri naa drapeau président ki nekk si kii bi Matar Ba mais dara fekk ma si dañ ma jox sama drapeau ma dem mais alaaji Papa Dieng mi kii royuwaay la quoi wax dëgg yàlla ku baax la ku baax la man miinu ma ko nag parce que mosuma toog ma toog mais xam nga làmb moom ku ci nekk xam nañ la waaw te ñu ngi koy gis ñu gis ay communication te loolu lañ soxla si làmb yee parce que lii fi nekk nag man ak Garga 2 ñoo ko seex et làmb làmb la rek li ko fi yàggal mooy feebar bi ñu ngi ñaan yàlla yàlla na ko suñu borom jëlee fi ci nu mu gën a gaawee ñu ubbi saison bi mbër yi bëre que le meilleur gagne samedi Balla Gaye 2 dafa woote fee see kaca mbër yëpp ak lu làmb yëpp dañ fa war a daje pour xool kañ la ñuy war a mën a ubbi saison bi pour gars yi war a mën a tàmbale yee loolu la ñuy ñaan yàlla taskatu xibaar yi yëpp ñu tasaare ko ba ñëpp jot ko bu subaa ñu mën a teg suñu coalition mouvement comprendre nga ci loolu laa doon am lu ma doon sànn non tap vert moom tap vert lii ma fi gisagum rek Youssou dafa dafa dal sama xel te man xam nga ni damaa bëgg lii te lii amul fenn bu dul ngéwél boo demee ko ñoom garga de ko fa fekk de <laughs> déedéet boo ko defee doo ko fa fekk. gën la ëppee. nga ma sama jabar diwal la de ah Amary Tako ma Ndiaye rek. loolu loolu la may defal maa loolu loolu. ñeent maa géwal day saf saf wala déet. en tout cas li may waxaat mooy. damay waa waxaat mooy mooy kuy waaraate moom mënoo bëri mboolo kuy waaraate war gaynde mënoo bëri mbooloo le fait que mooy dañ ciy nekk rek di ñaan yàlla suñu borom yàlla yóbbuñu su jàmm ñëpp am jàmm kenn bañ a manqué yee suñu borom def si poos yi xéewal waaw ba ñëpp mën koo teewee waaw di leen jaajëfalaat bu baax a baax a baax di nuyu sama xarit sama mag taali Couture élément Cheikh Ibra ak Serif ak ñoom Matar ak ñoom Karbala Sidi Oumier dama ànd ak ñoom quoi ak Fallou Koundoul koo xamante ni sama xarit nuy waa Gambie aussi tamit bu baax a baax a baax maa ngi leen nuyu bu baax parce que fa laa jugee démba rien que pour lii waa waaw <laughs> non samay mag a ngi fa sama lépp a ngi fa mais Serigne baa ngi Touba muy Serigne Abdourahmane Mbacke ibnu Serigne Mbacke Madina man si kooku laa yaakaar kooku mooy sama Serigne. waaw di nuyu aussi tamit Baye Karim Mbacke lu bu baax a baax a baax ak taawam Soxna May ak Serigne Sidi Mbacke alxuraan borom jàmm ga borom deux zéro yow juumoo de incha allah deux zéro Siteu xale la nekk si yoon voilà sita xale la nekk si yoon bu may wax naka nopp bi ngay wax damaa dafa nekk ci yoon pour mu daan pour mu daan loolu dañ koy ñaanal yàlla suñu borom may ko ndam man aussi tamit pour ma daan dañ may ñaanal yàlla aussi tamit ma am na mais suñu yéene mooy Berkel bu ñëwee incha allah daan bu ñëwee dinañ ko daan mon point de terrain wasalaam. waaw gars yi defe naa ne affaire yi moom fi mu nekk nii mat na Badou nag nee am na lu mu bëggoon lu mu bëggoon a tëjee Badou xam naa bu gàttee rek. di di sant yàlla. Euh, di dolli sant yàlla bu baax a baax a baax euh, mënuñu mënuñu tëj jotaay bi te quand même ñun waa groupe Equivox Vox Arena euh, gërëmuñu suñuy waajur parce que en fait sans que rien de ceci ne serait possible ñun ay xale yu ndaw lañ yoo xam ne ay saalum saalum lañ bi ma gisee lii tey dafa am lu sama xel dem bi may ñëw Ndakaaru pour la première fois sama papa daf ne ma yaa ngi dem Dakar yàlla na ko yàlla yërëm gaañu na le 9 octobre 2019 euh, daf ne ma yaa ngi dem dakaar mais boo demee ndakaar am foo tëdd moo jafe mais boo ko amee li ci des mën nga koo lijjantil sa bopp ma ñëw nekkoon ak sama grand frère mu ne ma nag su nit ñi di tappalee que truand wutal nit ñi bés boo amee nit ñi soxla boo am mu faju et dans ce monde d'aujourd'hui c'est très important de se faire des connaissances et chaque donc loolu dañ ci war a bàyyi xel et puis ñuy am un esprit positif nit dafa war di rafet njort parce que en fait milieu làmb ji euh, ñëpp ñëw ko bokk ku ci nekk da nga war am xalaat bu rafet gis nga nit bu la rombee te nuyu la jàppal ne daf la gisul mais bul ne daf ma gis di ma jaay affaire donc loolu la nit war a jiital ci xelam presse bi aussi que ce soit presse en ligne bi que ce soit les télévisions classiques et tout ça dañ war a ànd ànd bu rafet yéene wante jàmm ku nekk soo munee xajal sa moroom nga xajal ko parce que àdduna bi loolu la war a doxee dëkk ñun ñëpp ñoo ko bokk vraiment lamb ji xam nga warul am problème ñun ay xale yu ndaw lañ dañoo ñëw topp ci gannaaw mag mun nañu fi def loo xam ne kenn defu ko donc dañuy ñëw rek jéem a apporter notre touche à l'édifice pour xam nga lépp gën a rafet donc nit ñi ñëpp ñu jàppalante ñu yéenewante jàmm vraiment di ñaanal euh, suñu parrain bi yàlla defal ko jàmm ba bés bii nii nii ku ko gis nii tey ah di nga xam ne bis bi bés bu nar a neex la bés bu nara a la parce que lu mu bëri ah engagement ci am vraiment xam nga ak kilifa gi nga xam ne moom lañ ko tuddee dina tax ku ci nekk rek lépp loo xam ne mën nga ko cee def di nga ko ci def ñu ngi ñaanal ñëpp di sant ñëpp maa ngi gërëm nag sama famille quoi di gërëm suma waa dëkk aussi man maa ngi dëkk Passy donc ñun aussi groupe Equivox ñi ci ëpp Saloum lañ dëkk xam nga ñu ngi gërëm aussi Abou moom mi nga xam ne vraiment suñu suñu partenaire la accompagner ñu di ñu jox ay xalaat yu rafet di jàpp ci liggéey bi comme ni mu gën a rafetee maa ngi gërëm suma dëkk bu baax di gërëm sama soxna samay njaboot parce que aussi nga nekk ci business bu mel nii donc sa famille comprendre la bàyyi la ngay dem fikee nag lépp nga nekk ci di kër kër yi donc loolu mënuñ lu dul di sant di leen gërëm bu baax a baax ñu ngi gërëm ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di ñaan yàlla dafa jàmm bañ fekkee bés bi wasalaam